xam ma yoo xam ne tegguñu wut di wax loo xam ne tey tegguñ bu ci mag ah, yamee day taf gémminam ñooy laal nga ñuy wax ci loolu. waaw man de série du ma seetaan man moom boo ñëwoon laajal gone gii di nelaw soo ñëwoon fa ma boo seetaanee sama télé da daw man yi may seetaan kenn du ko seetaan man Sénégal ci moom seen coow laa taayal seeni détail laa taayal seeni commentaire laa taayal. te gis nga sa nopp loo ci dégg dalaa neex sa bët lu ci gis dalaa neex sa làmmiñ loo ci wax dalaa neex foo dem dalaa neex dafa am benn nit bu ma gis ku ñuy wax Baye Fall Baye Fall neex na ma trop xaw ma xam nga koom déet ah tudd xam nga ko ku ma neex a ngoog torop gis nga lu mu joué rek lu baax la mën a defer mën a wax lu rafet diggante bu yàqu mu defer man yooyu moo ma intéressé defer ko am na benn mbokkam bu jógee Saalum ci misaal rek eh, te takk long-long bi <laughs> waaw eh, daf ko ne fii liggéey la fi indi waaye caaxaan indiwula liggéeyal wala nga ñibbi liggéey moo la fi indi liggéeyal wala nga dem man du ma téye ko liggéey man liggéey laa xam muy lii ma wax am na solo wala amul solo doxal tuuti nga xoolaat ñu dem ba mu yàgg benn xale bu jigéen doon dawal otoom dawal otoom dem ba mu yàgg oto ba fay dematul gaa yi toogoon ca boor ba daw bëgg a jaar ci kaw ndaw si Baay Faal seen leen rekk daw mais gaa yi dellu leen fa ngeen nekkoon mu ñëw ne ndaw si wàccee weer bi ndaw si bañ daa defe ne ci bàndi la mu nax ko ba mu wàccee weer bi mu ne ko man dama lay dimbale ubbil ma kanamu oto bi mu ubbil ko mu def ay tig tagam ba oto bi tàkk mu ne ko taalal mu taal mu sotti li desoon ci ndox mi ne ko demal boo demee ba ci station bële nga wax leen wut ndox dolli ko ci dinga wax sa mécanicien mu defal la entretien li taxoon may def lii du dara dama doon bañ rekk fii baaxul moo tax ndaw si làmb lu mu ko jox yem ci benn ñaari téeméer mille francs di ko ko jox ne ko ah bëggoon naa la jox lépp wala nañ dem ba fa mu ne ko non non mille yi mooy sama wërsëg lii la ma ci yàlla jox moom laa moom mooma lew jërëjëf merci beaucoup. Ah, oustaz ñu gis ne jamono ji ah, soxna yi seen borom kër nekk bitim réew ah, ñu ngi ñaxtu ndax ne dañuy toog ay at duñ mën a ñibbisi ñu lay laaj lool la ci sariya wax. waaw xam nga muy jigéen ñi nga xam ni eh, seeni jëkkër a ngi ci bitim réew tukki. Euh, ñu dem ba mënatuñoo muñ jigéen ñi mënatuñoo toog xaar ndax seen jëkkër yi demuñu ngir mbon dañoo uuti xam nga sa classe gi yéen ñi tey bu ngeen jëlee gaal gi dem dangeen ngeen naa leb xaalis wala seen yaay leb ko baa mu jaay teere baa mu leb ci pamikaas bi xaalis jox la nga dem bor bi cinq cent mille la léegi pour nga lijjanti cinq yaa ngi fi bàyyi jabar bëgg a lijjanti cinq cent mille fay bor bëgg yor sa jabar sa jabar mooy nekk nit ku comprendre xam ne sama jëkkër dafa dem tool bayi tànk tool ya parewul du ñëw indi li mu am parce que tukki dem tool la soo amul doo mën a ñibbisi kon yow yaa koy comprendre di ko ñaanal te di ko oo di ko nemmeeku waaw parce que doxiwul caaxaan kenn du génn Sénégal dem Espagne wala Italie wala Amérique wala France di doxi caaxaan boo bëggee caaxaan kay dëkk bi am na fi jigéen ñaa ngi fi sàngara sang fi yàmbaa jàng lépp a ngi ci biir dëkk bi mais ki dem yow mi jógtee bàyyi fi sa soxna nga xam ni dundal ko dalaa tëwoon sa yaay moo la ci doon jàppale nga xëy sa yaay lijjanti benn un million ne la dawal nga dem tukki nga dem yàlla dimbale la nga dem Italie du dangay dem for xaalis bi indi doo ko sol ci saako indi déedéet da ngay dem liggéeyi kañ ngay am liggéey xamoo ko xamoo ko ni sa jabar xamul kañ nga am liggéey ah kon donc li jaadu mooy na la bàyyi ti di la ñaanal ti di la nemmeeku danaa la wax benn jigéen xam naa nag euh, jigéen ñi duñ ko roy ndax dégg naa suma benn baay bu baax père Mangone xam naa xam nga ko waaw ah, père Mangone ku jar di déglu la parce que day mag mu xam waxi démb euh, di nett xale yi nag ñoom tey lañ xam di tey amul njëriñ li fi baax tey yëpp démb ko jur soxna maam jaara bu sa ku la wax ne la ñaata at la am yaay Serigne Touba looy wax fanweeri at ak ñett 33 ans mu jur ko toll ni Xaadimu Rasuul mu liggéey li mu liggéey donc la mu daj poroxaan daj ko ci Mamor Anta Sali daj ko ci taalibi daj ko ci daara daj ko ci sunu borom ba jël doom ju toll ni Xaadimu Rasuul jur ko ca jigéen buy bàyyi ndeyam ak baayam war naa jur ko gën ndeyam ak baayam muy dëgg ku ba sa ndey ak sa baay dem ànd góor war nga faa jur ko gën sa ndey ak sa baay indi sa bàyyi sët boo xam da koy tiitaroo mais bu ko indi sët boo xam da koy tiital parce que doo bëgg mu dugg néegam sàcc yëfam kon donc ku bàyyi sa ndey bàyyi sa baay war ngaa xam ne ki nga topp nag tuutiwul jëkkër ji tuutiwul mais gars yi dañuy toog fi naan wuy dem tukki bitim réew bàyyi fi sa jabar loolu wóorul mais ki tukki foriwul xaalis bi solu ko ci mbuus indi fekk fa xaalis ba ñu jal ko gis nga mu ngi mel ni nga ñëw Sénégal tukki si fi jógee Gambie wala Mali wala feneen ñëw di liggéey nooy def da ngay da ngay commencé def say demande soo xëyee wër Sénégal di wër rek pour foo liggéey mais noonu la Sénégal yi dem benn réew di def mais jëmuñ jubal ci liggéey te réew moo dem dafa am këyit yu ñu lay laaj séjour amuloo ko xaw ma amuloo ko lu tax nga mën a toog ci réew ma di circuler nu la neexee amagoo loolu léegi sa xarit bii ngay mujj jël kayitam di ci jéem a liggéey bu wàccee jox la nga jéem cee dem te loolu risque la wóorul mhm. waaw donc risque yi Sénégal yi nekkee foofu seeni jabar dañ koo war a xam risque yu métti lañ fa nekkee léegi lañ gis koo xam ne su demee di jaay dañ koy tëbal magum jëm yow ponkal mu toon bàyyi sa jabar si doom di daw mhm. te mag ki lay dàq yaa ko mag mais loolu métti na yooyu affaire la ñu war a xam ba pare parce que jaadu na yéen tey bu leen yàlla mayoon doole ngeen dem bitim réew xool moodu moodu yi ci luñ ne ak faatu faatu yi ngeen filmer leen waaw ci tefes geeg jaayukaay yi ni ñuy daweeg ni leen policiers yi di dàqee mu ngi mel ni boo demee croisement Cambérène rek li nga nit sénégalais mel foofu man fa laay jaar bu may ñëw bu may ñëw Sud FM foofu laay jaaree dakaar xaw ma fi dara croisement Cambérène ñëw fii laa xam wala nga dem Medina dem fa suñ télé bi njëkkoon ne point wala HLM 4 fi su ma ne jaay ne gis nga boo demee croisement Cambérène dañ leen di tëbal buñ leen dàqee ñu wàcc policiers yi jaar fi ñu jaar fi mel ni dëkkuñu Sénégal te ay sénégalais lañ loolu jàngukaay lañ leen dem sa réew lañ lay tëbalee ngay daw ñu di la dàq pour ñu la jàppee nangu sa marché mais boo demee beneen réew nu muy mel kon def loolu sa réew beneen réew nu muy mel donc dañu war a pousse xale yi jàppale leen ñi ne fii. di yëngutu seen télé yi ngeen yor ak ñu yor as njaay ñu jàppale leen ñu avancé ñenn bitim réew ñu ñaanal leen di leen téléphoné di leen conseil amuñu liggéey man maa ngi faa waajoo xam sama wóllëre ba mu tukkee léegi ci dara daara jàpp ko nee na ma lu ma xëy ndekkee sax du ma ko su ma xëyee wëri liggéey te samay xaar ba sama morom bi wàcc ma jël këyitam wëree ko ba damay bañ ñu jàpp ma te bis bu ñu trouvé ne moomul këyit dañ koy tëj. waaw am na ñoo xam ne ba néew ma léegi ñu ngi leen tëj dañuy nëbb seeni mbokk dañ leen tëj rek di dara def ko lu loolu bëgg a dimbale sa yaay dimbale sa papa dimbale sa jabar kon donc jabar yi ne fii nag lenn mën a nekk li charia wax kii dafa liggéey mënatumaa muñ muñ nag ñaar la ñaar muñ góor mënuma koo muñ il faut nga ñibbis wala nga jël si ma mënuma ñëw te su ma dellusee dellu ndax aw damaa fexe def ay pexe ba dem waaw léegi nag mënumaa muñ soo ñëwul damay njaalo baay bi ne ñi ñaan soo ñëw leen wa yóbbu ko baa ma tas ko sinon day njaalo mais Sayyidatuna Aïcha bi muy séyeg yonent bi alayhi salaatu at dong la am yonent bi denc ko doomu Ababacar Sadiq la joxuñ ko ko de bi mu amee neuf lañ koy doog jox jox bu dee man ak yow mooy jébbale mais bu dee ci yonent bi sañu ma ko ndax suñu kilifa la mais bi mu amee neuf ans moom Aïcha lañ ko jox góor gi foofu ngay xame yiwu Muhammad ñun ñi tey ku ñu jox xale bu jigéen neuf ans yaa est-ce que duñ ko rey baa ñu gaañ ko ah mais fi ngay xamee ni yonent bi amul morom xam ni mooy ku yiw xale neuf lañ ko jox bu dee ci ñu maag yow ak ñun ñi jébbale laa wax bu dee ci yonent bi sañu ma ko jox rek laa sañoo mais neuf ans xam nga kañ la kañ la yonent bi faatu bi mu amee 63 ans la faatu fekk na booba Aïssa mu ngi ci 18 ans di doog a major tey booy dundal sa doom bu amee 18 ans dund ba wàcc na la bu dee góor la bu dee jigéen la bu amee jëkkër wàcc na la su dee handicapé la yaay continuer dundal bi ba ngay dee baa mu dee xoolal 18 ans la ay Aïcha boroom këram nelaw te jabaru yonent kenn du ko takk wa azwaaju ummahatul mu'minin yàlla nee na soxna yonent ndey jullit yi lañu kenn sañu leen takk seetal mu am 18 ans te xam nga ñaata at la Aïcha dund 66 ans juróom benn fukki at ak juróom benn léegi juróom benn fukki at ak juróom mooy ci 18 48 ans célibataire yow nga sa jëkkër nekk fii nga naan sama jëkkër na ñibbi si mun lu muy def gàm bi baa ma tas mën ah, a mënatuma muñ góor c'est ça le problème mais boo ko yéenee ndam da ko jàppale da ko jàppale parce que kii uutiwul pour yàq moodu moodu bi demul pour fo faatu faatu bi demul pour fo fi ñu ne lañu gisul lu leen mën a dimbale fii mal iqaamatu fii zawraa yi zawraa dëkk la benn benn benn waay moo fa nekkoon benn immigré ñu jàpp ko dafa defoon immigré ñu jàpp ko comme niñ def xale yi léegi nag mu wax wax juñ ne man léegi kon lu may def Sénégal awma fi kër awma dépense awma paasu oto kon kay dee gën awma dara fii ma iqaamatu fi zawra laa sakka nii fiiha wala naaqati fiiha wala jamali nee lu ma fiy def aw ma néeg awma ma dépense paas xale yi looloo leen jar nit tukki nooloo leen dal ji nga boo xamoon moodu moodu yi li ñuy def da gis ko yor lu dul benn cinquante mille nga xoos lu yónni sa yaay li yónni sa jabar li kon ku mënatul muñ yoon may na la nga tas demal ca sa baay ma la maye woon nga ne ko papa mënatuma muñ sa papa dem ci mbokki xale bu góor ba baayam ba ñaan si woon ne ko sama doom nee na mënatul muñ bu njaaloo yéene ko toñ kon damay dindi sëy bi waaye nag booy dindi sëy da ngay fay alal bu ko fàtte da ngay fay de baay bi day fay de day yëkkati ne ko sa doom defoon na sama doom un million Modou Modou bi defoon na ci un million sama doom mënatul muñ sa un million doom a ngi tas naa sëy sëy ba doo ko deñ comme tey ni ngay fase jigéen may ko baatam mu jël ñu mu ñëw lépp nekk ci kër gi mu jël ko yóbbu ko tamit buñ lay kii tamit. non xam nga góor du may eh, jigéen du ñaan baat laaj ma lu tax lu tax parce que baat bi bàyyee ko yor moo ko maye ki la maye moo yor baat bi moo jël sa baat may góor gi. soo demee ba jaaxle defal li alquran waxoon fab'asu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha su problème bañ demee ba bëggante am ngoro gi am na góor gi di dem ndaw si di ñëw ñu dem ba war a fas sëy bi ndaw si mënta maye boppam góor gi mënta takk ndaw si kon yow dangay dem ci bàyyu xale bu jigéen bi ne ko dama bëggoon sa doom mu d'accord nga yebal sa baay mu dem ñaanali la su la ñaanalee bàyyu ndaw si may la xale bu jigéen bi su ngeen amee problème yàlla nee na na ngeen defoon ba parents yi dox ko defaal leen ko ñu waxtaan su déggoo mën a am ngeen déggoo su déggoo mënta am nag léegi baay muy baay bi maye woon muy jël si baatam mais xale bi yorul baat bi. te dañuy gis fii soxna yi jékki na may ma baat. waaw dañoo xamul rek ñàkk xam la ki maye muy ñëw ne kon nag ki ma la mayoon de wax dëgg yàlla nee na mënatu toog. bëggatul day tas waaye nag ku ne damay bàyyi ku bëggoon a jënd ne da bàyyi da ngay delloo njëgu jàmbur am déet jëndatuma sa njëg a ngi jëndatuma sa xar ngi léegi kon un million bi nga ci defoon yow yow yaa ko ci defoon baayu ndaw si buy jël si baatu xale bu jigéen bi day yëkkati un million bi jox baayu baayu ko góor gi ne ko sa doom moo fi joxe woon un million may ku jëkk ala ma ngoog sama doom may ko baatam mu yeewi ko